asalaamaaleykum rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi taalibe yi noo ngi leen nuyuwaat baax di leen ziare yéen ñuy topp Bichri TV ñu ngi fii ci kër sëñ Fallu Mbàkke mu sëñ Abdul Xaadir ñu taxaw ak jëwrin sëriñ Yusu Diop jëwrin Hizbut Tarqiyyah mu ñëw ziare si e, ñu saaf ginnaaw bi ñu ko nuyoo ziare ko bu baax a baax ndëkkal ko ci bis bi dañ koy ñaan rek ay kàddu yu néew mu fàttali ko sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne ñoom jamononte nañ moo ak moom jamono bi nga xam ne mi ngi ci liggéey sëñ bi fàttali ko ñu e, ci jëmmi sëñ Abdul Xaadir <laughs> ak seen diggante ak moom. <laughs> jërëjëf jërëjëf xanaa ndokkeel leen yéen itam ndokkeel bokki taalibe yëpp rek ndax euh, sëñ Abdou Khadir dafa bokk ci ñi nga xam ne lu ma ciy wax damay delluwaat ci kàddu yu néew yu sëñ Muntaxa wax rek nee na sëñ Muntaxa euh, sëñ sëñ Abdou Khadir xaalu sëñ Tuubaa ju soppaliku jëmm la maanaam kon xaalu sëñ Tuubaa ju soppaliku jëmm la kon ku ne xam na ne yëngoom ak dalam ak léppam sëñ Tuubaa la loolu mooy tënk bi sëñ Tuubaa nag doon ku ñu xam waaye sëñ Abdou Khadre xam nañ ci moom rek diggante boo xam ne ànd nañu moom mu wax ñu ne sëriñ bi moo leen sóob moo leen di wommat li ngeen def nee na pexe mënu ko kattan mënu ko dara mënu ko lu dul ndimbalal sëriñ bi daan nañu wax tam ne euh, diggante sëriñ ak taalibe wéttalante la bu fekkente ne euh, jëmmi euh, néeg bi yéen ci boppam permet koy wéttali loolu moom daan nañu ko wax kon euh, sant rek te te te te ndokkeelaat ñëpp ndax euh, yàlla suñu borom mooy xudaratu ak bi ci lay defee lépp kon bu sëñ Tuubaa tibbee ci xudaratu euh, suñu borom jël xaalam def ko jëmm kooku sottal na lépp te mooy imaamu jaam ñi sëñ bi sëñ bi itam sëñ Fallu ñoom am kóllëre bu yàgg njabootu sëñ Tuubaa gépp doyloo ko it di ko jiitaloo ma jóge ci sëñ Moustapha Magam ñëw di ko siyaare su ma ko mënoon képp ku ñu tudd si Abdou Khadre la tudd dinaa taxaw sa budd ko jërë ngeen jëf